Bienvenue sur Salam Vision.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 di santal bu baax a baax baax ci xéewal yi ñuy defar rawatina xéewal gi nga xam ni moom la ñu nekk di weeru tedd di weeru sell di weeru barkeel di cheru ramadan bu ñu yàlla dimbalee fa tabaarakallahu bu ñu fekkee ko mën cee dugg bu mën cee am benn fan ñoo koy sante borom subhanahu wa taala ndax heure bii daaw am na suñu kii juñu morom ñu fi nekkoon te tey ñëw ñu fi nekk heure buy daaw am na suñuy bàjjan am na suñuy pap am na suñuy maam am na suñuy rakk am na suñuy sœur am na suñuy xarit ñooy wóor fii ak ñun ñàkk ñu faral ba weer bi ñàkk leen fi fekk ñun du ful la moo tax weer bi fekk ñu kon bu yàlla dimbalee bu ñu fekkaat fi weer bi dafay jaadu lool ñu sant ko sant ko nag sant ko amul àpp xam ne dafa nañu xéewal boo xam ne li mu waxoon rek sama xéewal yi mooy mbooloo mooy ñu mën koo takk xam ne lépp ci xéewal yàlla bokk wa tabarakallahu di ñaan yàlla weeru tedd bi yal nañ ci yàlla may ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn seet alhamdulilahi rabbil alamin lépp lu ci jaamu yal na yàlla waaye lépp lu ci juum yàlla yal na yàlla jéggal ñu weer wi la weeru bu ñaa la comme ni ko waxee promotion deux cent pour cent six cent pour cent waaye bi moo ko doon yooyu waaw kon weer bi weeru promotion la kon nit lu ci bon bon bon bon bon wala lu ci dégg dégg dégg dégg fukki weer ak benn nga nekk ci lu la neex benn bi ba yàlla waxee warmaanal ma ko war nga ko mën a warma du xamatu chahri kon nga warmaal weer bi kii feebar sax ku feebar bu lekk ci mbedd duggal ba sa biir ne nga lekk fa bi xormati chère ñu ngi warmal weer wi xam ne weer foofu la ci weer wi nag la julli wàccoon Seydina Muhammad seen la dem xaaru Hira su xaaru Hira di fi wéetal yàlla am na ñu fa doon nag waaye fu mu sëram nag jombi nga bi ba bi ba bi dem gaa yi wax nañ Xadija ni ko sa borom kër ko fi dem ndax fi dem am na ñu fa jiitu woon te kenn ku ne ba fay jógee ñu fa génnee ñu ngi sant jinne dof ñu rab ñu koy tere rek waaye mu rasulullahi Xadija wax ko dara moom muy gunge dem ci xaaru Hira boobu am nay temps daan daan daan def ay deux jours am nay jamono mu dafa benn fan yenn saa mu dafa ñaari fan waaye dafa wéete rek ba Jibril fekk ko fa keroog ba fa Jibril fekkee di ko iqra ni ko ma annaa bi qaari xamu li jàng ñu ko jàngal ci weer wii la woon mu wàccee iqra bismi rabbika allazi xalaqa xalaqal insaana min alaqin waaye nag iqra wa rabbuka al akram ci dafa jugee nag di ko jiwul kare yooyu bu mu bëggee géej gi la ko kar mboq ko suñu moom Cheikh Seydi Hadj Malick jàll nañu ko ni iskara xata marratan yaqulu lahu iqra bismi rabbika anta xaatimun nabiy bi ko mboqee di ko jàngal ndax yaay moo tëggee rek te te yàlla li mu dëxal ñëpp ñu ngi ko dëxal ci yow keneen ko am ñu ngi ko jëlee ci yow. ci la fa jógee nag naan zammiluuni zammiluuni zammiluuni ñëw ci Xadija naan sàngaleen ma sàngaleen ma sàngaleen ma ci weer wi la woon kon fa tabarakallahu weer wi weeru alquran la waaye du weeru lido du weeru carte am na xam ne topp nañ seen nasu sax su waxee ñu ne moo gën jëw waaw lido moo gën jëw ah, bàkkaar yi dafa am dañuy amoon ay dëgërante la dafa am asaxir am kabir dafa am yoo xam ne yu mag am na ma yu mag am na waaye teewu ko doon bàkkaar rek tiimoon sa alxuraan wala sa xasida wala sa xasaayit yaakaar naa wala yow sa kurus moo ëppoon loolu foofu nga tiim bi mbaa bi te nan moo gën yow wa tabarakallahu ñu sant yàlla rek waaye julli ci Seydina Muhammad bi nga xam ni mooy sangu sang yi xam ni lii tey bu ñu ko amee tey ñoo ngi ko amee tey ci dara jàmm tey weeru koor bi bu ñu ko ko amee ci dara jàmm ñu ko yàlla fi jiitu woon donte wax na nag di la ne kutiba aleykum siyam kama kutiba ala lazina min qablikum laallakum tattaqun waaye ñu ko doon fay ñu jiitu ak ni ñu ko wàccee woon ak ñun xeetu rasulullah du benn ñun dañoo benn lox lépp grâce à Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di fa tabarakallahu di ñaanal suñu sëriñ Mawlana Cheikh Tijani yàlla yàlla doon soppaloo ñu ko waaye di nuyu fa tabarakallahu mboolem xalaf généraux yi ko suuf di jiital sëriñ Babacar Sy yal na yàlla guddal fanam yàlla bàyyi ko fi yàlla sàmm ko fi toxtal ci sëriñ Mountakha Mbacké xalifa général des mourides di ko ñaanal moom yal na yàlla taxaw ko yal na yàlla sàmm ko ak mboolem xalifa général ci kaw suuf tabaraka allahu ak mboolem xalifa général ci kaw suuf bàyyiwuñu kenn kenn kenn kenn day dem ba Laayeen dem ba Ñaseen dem ba Medina Baay dem ba Lona Ñaseen dem ba Njaasaan dem ba Ceneba bàyyi wu ñu kenn ñoo ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di baalaax ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm yàlla muy borom jàmm ku mu jàmm nga jàmm yéen yàlla def si jàmm ci réew mi bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa tabarakallahu di ñëw rek seen émission bi fi tàmm def ak di al ilm wa taalim di xam ak xam ne fii ci Salam Vision ñu ngi ànd yéen ngeen di seen xarit seen soppe al oustaz Ibrahima Diarra fii ci YouTube bi fa tabarakallahu di Salam Vision di nuyu nag le DG di ko ñaanal yàlla yàlla sàmm ko di nuyu sàmmatu bi nga xam tabarakallahu mooy réaliser émission bi tabarakallahu di ñaanal ñëpp ñu nekk nag ci weeru koor yàlla ñu ci yàlla ba ñu dugg bismillahi rahmaani rahim waaye génn seet alhamdulillahi rabbil alamin Seydina Muhammad wax na ci hadis mu ne mu ne ut minu li sittan mu ne ut minu li sittan min anfusikum atman lakum jannata Seydina Muhammad nee warlu leen ma juróom benn ma waru leen àjjana waaw nee leen ma juróom benn ma waru leen kon nga xam ne moom nee na garanti ma yow sàmm juróom benn ma garanti la àjjana bara mu ne ab manu li sittan min anfusikum ab man la jannat ne nii samay xeet garanti leen ma juróom benn ma garanti leen àjjana bi ci jikko mu ne asdaqu iza hadastum ba ngeen di waxtaan dañu ko ci dëgg nee na seen waxtaan teg leen ko ci dëgg bu leen di fekk bul xool lu neex nit ki rek ba waxoo waaye wax li nga xam ne moom mooy dëgg waaw ñu nekk Sénégal dañuy def ànd jaayante tàggoo jëwate su la tiimee dañ lay bëre bëre bëre bëre bëre ba nga tooy xepp xepp xepp xepp soo wanee ginnaaw rek ñu teg la ci pour bi ba Sénégal lakk ba nga ñor nag dibile nag pour mën laa lekk nag wala fa tabarakallahu yàlla ci yàlla musal wala musal waa mu ne asdaqu isa hadastu mu ne seeni waxtaan na doon dëgg kenn ku ne na nga wax dëgg waaye bul xool lu neex nit ak moo xam ne kii su ma ko waxee dëgg dootuma may mille franc wala su ma waxee dëgg dootuma lebal dootuma lebal daal wala su ma waxee dëgg dootuma may dootuma may sewene dootuma may dootuma may yére wala su ma waxee dëgg dootuma defal lii ba tax na du ma wax dëgg te am na yoo xam ne seen am am moo tax kenn ñi may wax dëgg am ñoo xam ne seen barkeeg seen daraja moo tax kenn mënut leen wax dëgg seen barke boobu ak seen daraja yooyu ak seen am-am boobu fii lañ koy te di nga jàkkaarloo borom dëgg xam ne lu dëgg rek du dëgg muy borom subhanahu wa taala wala Seydina Muhammad ni asdaqu iza hadastu di ngeen di bu ngeen di waxtaan seen te teg leen ko ci dëgg da leen waxante dëgg te bañ di jaayante waaye comme ni ko waxee léegi rek Sénégal ànd a jaayante tàggoo jiwante su la tiimee yaa baax. ay sama doom bi yal na yàlla guddal sa ma ay sama doom bi yaa mel nii bu doon yow kay nii naa nga wane mu xool ko moo gën a triant ñëpp moo gën a doy waar ñëpp xool ko moo gën a yéeme ñëpp kii di am nga loo ci xamul sax li ma ci xam sax xamoo ko ci am nga sax loo ci bàyyi te yàlla xam na li ngay wax daara daara daara daara daara du ci dëgg ñu léegi Sénégal dañuy boole fen ak sos dañuy boole fen ak sos dañ lay fenal du jàpp fen mooy ngay wax loo xam ne dëgg la te sa yoon ci ki wax la dul dëgg la te yoonam na mu ci nag kooku kon koo xam boole fen ak sos kon fa tabarakallahu Muhammad ni asdaqu isa hadasu bu ngeen di seen waxtaan yëpp te leen di dëgg wa awfu isa waatu nee na ngeen matal kóllëre nit ki da ngay matal kóllëre waaw su la nit waxee dara ba kóor la awfu bil ahdi inna ahda kaana masuula waaye ñun léegi amuñu kóllëre léegi ñun lu bees rek la ñuy bañ fii léegi néew na ngay dugg Sénégal gis ci koo xam ne ànd xartu dem ba bërki dem ba waaw xale bu bees rek maa ngi évolué am naa xale bu bees léegi damatuma seen saas léegi léegi maa ngi ci bële niveau léegi tey su ma xamee sàmm soo ma xam Ibra ginnaaw soo ma xam Kéema ginnaaw soo ma xam ma xam ma xam ma xam ma xam ma xam Fàllu te ma am kóllëre mukk mukk mukk mukk mukk mukk te du yor dara mais noonu ñaari di ñëw seen kër di fa añee di fa reeree di fa ndékkee di sangoo di fa demee duus waaye bu commencé jàpp ñaar dërëm juróom commencé am junni dootul jaar koñ boobu bay jaar sa kër gi da leen da leen di tey gi sax tey daw maa ngi ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw yàlla ni ana kóllëre ana kóllëre nit da am kóllëre Seydina Muhammad ne ku bëgg mu war la àjjana ñu ne yow mii bokk nga ci nitu àjjana yi nee na da am kóllëre nit day am kóllëre nit day am kóllëre waaye nag Sénégalais nag sàmm nit feeg yoroo gul bul ni ku baax la feeg amoo gul bu ko jugé man nag ñoo xam ne seen ñàkk tax ñu baax de seen ñàkk ñu am kóllëre de waaye bu ñu amee nga xam ne du ñu ñu baax bu ñu amee nga xam ne amuñu kóllëre mu tax yàlla lu mu def daa gën ku mu xañal xam ne tax mu xañal ndax kenn bu kenn mere kenn kenn ko ne mere sa bopp yàlla moo gën a xam ni ñi jaam yi wala rasulullah bu ci ñaari ba ngeen bi matal kóllëre bi ci ñetteelu mu euh, wa wa addu isa ut mintum nee na su la nit ki wóoloo bu la nit ko war soo nit ki wóoloo bul ko war léegi Sénégal war yi comme léegi maa woor yaa ngi mel ni takk sa bët nëpp sa bu réer bari na fi ñoo xam yaa leen gis war moo leen def fi ñu toll te war baaxul te ku war leen ba dëwoon mu jig la dañ ko ji waaye defoo ko bul xool mukk mukk mukk mukk mukk sa bëgg-bëgg lépp luy dugg na ko xool képp koy jëflanteel soo ko mënul leen mënuma képp koy waxal ni ko mënuma waaye bu ni ko mën naa dem ba ci diggante bi naan serré ko si nga saak donte l'homme propose mais c'est Dieu seul qui dispose doomu aadama day sawar rek mais yàlla mooy dogal mais am na ñuy wax kenn du tas yaakaaru góor te ku tas yaakaaru góor yaa ngay ma tas sa yaakaar yaa nga ne ku tas yaakaaru góor ma tas sa yaakaar waaye si na ma xam ne bi ci jiitu seen waxtaan na doon dëgg ku bëgg moo doon ko àjjana bi ci ñaareel ba na nga bi ci ñetteel ba bu leen bul ko wor waaw da ngay ñëw léegi wóolu nit sàmm daw ba sa biir ni am problème waxu ko nga génn fekk problème bi ñu koy waxtaanee si biir mbedd bi waaw nga wóolu nit nga wax ko loo xam ne yàgg dong ak yàlla la nga génn mbedd bi yëpp commencé ko waxtaanee wala mu ñëw wax ne lii lii lii ba nga gëm ko mën na def nag sa ko te wor baaxul Seydina Muhammad ne képp kuy wor bu la kenn joxe ñu ne du àjjana xaw ma ku la mën a warul àjjana waaye ma rasulaa mun naa mun naa warul àjjana képp kuy wor képp kuy fen hmm? képp kuy ñàkk matal ku la mën a joxe ku la mën a asséeréel àjjana ne la asséeréel waaye ma rasulaa mun mën a asséeréel àjjana te ku Mustafa asséerul àjjana kan moo lay asséeréel àjjana dañoo mën dëgg. mu teg ci mu ni waxfazu furujakum na nga tey sa pay bu dee ku góor gi bul séq jigéen mukk fekk joxe woo cal bu dee ku jigéen gi bul séq ku góor ki mukk fekk joxe woo cal fekk joxe la cal waxfazu furujakum aka jafe aka jafe ci réew mi léegi xale yu góor yi sax dañ koy dem dañ sax naan jigéen bi gën a yomb léegi ceeb xam nga bu dee bu yéexee naan ay jigéen ñi gën a yomb ceeb xam nga xale jigéen ñi dañu war a rey seen bopp xam dañu war a rey seen xam nga dañoo war a rey seen bopp xale bu góor boo xam ne bu ñëw ci yow dafa doon neexal pour dugg naa la may ma sama saas may ma sama saas ngay bañ naa nga tey suba tey suba ma mën a duggal kooku dem ba osé sàmm dina dóor ak dina saaga ak dem naan la. ceeba la gën a yaa ceeba la gën a war a xas gas xas gër kaw mu xóot rek nga dugg ci sa bopp waaw bu njëkk ba mu sant ci jigéen dañuy kontaan di rey sa bopp waaye léegi da ngay nekk jigéen ci biir nii sa doo xam ne ay toogu jigéen waaw boo toogee gars yi bi dama war a wax da ngay sax tiit dañu xam ndax góor yi ñoo boo rombee ñuy wax danaan ba xam ndax góor yi ñoom ñooy wax nii waaw wala nga romb ci mbedd mi yenn saa gis ñuy dóor jigéen dóor bi mbéj tëll tëll tu bi tëll tëll nga bëgg a tourné nga bëgg a tourné teqale sa xel yedd la ñaan demal disant ñoo xam ne teqale sax ñu ñu ñàkk leen gas dina lu seen yoon waaw kon wax fa suuf rujukum seen naa xam ne nga téye sa wala ko jigéen ko téewee ni nga ko war a téye ba ba cat ñëw wala ba nga dégg alxayri jox ki nga ko war a jox Seydina Muhammad ne la ku la joxoon nitu àjjana nga ma joxañ la ku la joxoon ma joxañ la waaw bi ci ñeenteel bi juróomeel wa gaddu absaarakum na nga damm sa gis-gis bu ci xool lu xaraam waaye ñu léegi xool moo ñu gën a xool lu dara déglu moo ñu gën a déglu lu xool xaar moo ñu gënal fu xool dara mën nañu xool toyotoo yi film yi xool fonante yi xool njaalo yi xool ni gars yi waxee waxi bone mais ibbi suñuy bëri ibbi alxuraan xool ko wala ñu ibbi xasiide xool ko wala xasaay lu jafe la waaw seen naa xam ne seen bët yi boo ci xool xool nañ ci lu baax waaye ne lu bon nañu gën a yàkkamtee xool ko lu baax léegi waaw Seydina Muhammad ne nag képp koo xam ne yaa ngi xool lu baax bañ a xool lu bon si sama juróom benn yi ma la wax ni boo ko defee moom waroon la àjjana nga bañ a xool lu bon nga bañ a xool lu bon ci la bi ci juróom benneel ba wakkafu aydiyakum nga téye say loxo ci lu bon waaw say loxo bu si jëlloo moomu bu ci nuyu jigéen joo boo boo takkul waaye day gars yi ñu nuyoo léegi ñu ngi sax. Sénégal daf ne la bu ci nuyu koo joxul loxo waaw koo toppul bu ko jox loxo waaw wa kafu aydiyakum kon fa tabarakallahu suñu émission bi ñu amoon ak yéen tey bindu tey bi loolu la woon ci weeru tedd bi ci weeru sell bi ñu nekk ci fukki fan yu njëkk yi tey ñu doog a tàmbale koor bi di ñaan yàlla rek muy weeru yërmande fukki yi yërmande lépp luñ ci jaamu rek yàlla yàlla nanguñu ko lépp luñ ci jub yàlla yàlla jéggal ñu ko. Seydina Muhammad nee na waru leen mu juróom ma woon leen àjjana bi ci jiitu da waxtaan lu dëgg bi ci ñaareel ba day doon bi ci ñetteel bi ci ñetteel ba bu leen di bu ci ñeenteel ba ngeen sàmm seen i pëy bu ci juróom-benneel ba ngeen bottu seen gis-gis bi ci juróom-benneel ba wa tabaarakallaahu ngeen téye seen loxo ci lu yàlla gërëmul nee na juróom-benn yi ku ko def moo tax suñu laay maa la warul àjjana kon fa tabaarakallaahu di ziar waat di baalu àq ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu tabarakallah suñu daañu Bousso nekk ba o Moussa di sët ci di doom ci maam Thierno Bousso di nuyu yaay bi ñu waa di ko ziar di ko ndokk ci weeru di ko baalu àq di ko ñaanal yàlla yàlla doon ko baal di soyez joyeux anniversaire sans papa bi baax jooju di papa Mor di ko ñaanal yàlla yàlla gën a guddal fanam papa Mor yàlla yàlla gën a papa Mor yàlla yàlla gën a la papa Mor loo dund doyul wax yàlla. vraiment je suis très reconnaissant envers vous yal na yàlla taxawu la yal na yàlla sàmm la di ñaanal sama doomu jigéen boobu di lay jaram mu yal na yàlla guddal fanam yàlla ko fi sàmm ko et puis loolu la doyul sama bébé boobu tabarakallahu di nuyu tabarakallahu yaayam di soxna Fatima Faye di ko ñaanal moom it yal na yàlla taxawu ko sàmm ko du ma fàttewul ma te jaay di ko ziare di nuyu soxna Dieng nekk ba dagaan ziara ko di ko suur kooku mu ngi ñëw waaye di nuyu soxna Soda nekk ba Italie. waaye di nuyu Serigne Gallas di ko ñaan yàlla yàlla sàmm ko Cheikh Adja yàlla yàlla delloo nuyu na mboolem koo xam ne am nañu ci émission bi di Al Hilm wa Taalim di ziare ñëpp di baalaq ñëpp di ñaan ñëpp jàmm wasalaamualeykum taala wa